dañu daje ci benn lël pour waxtaan sottante xalaat ba pare présenter benn euh, ay jumtuwaay yu bees ay xarala yu bees yu ñu dugal ci biir plateforme bi ñuy wax Télédac am na déjà liggéey bu am solo bu mu doon def waaye dañ ko kattanal dooleel ko pour que liggéey bi muy def gën a ñoŋ loolu nag ñu ko def avec le soutien et l'appui avec la complicité positive du ministère en charge du numérique mais aussi du ministère de l'urbanisme

dëkk fu sore war ko mën a am te mu gaaw loolu lépp ay ay ay mbir la yoo xam ne waxtaane nañ ko yaakaar naa ne yoon bi nga xam ne moom la ñu mal suñ ci yeggee lu bëri ci li nga xam ne moom la Sénégalais yi di dund ci affaire lenteur wala ci affaire complexité des procédures maanaam maanaam euh, procédure yoo xam ne dafa xaw a compliqué je crois que lu ci bëri dina dina dina mën a simple dina gën a mën a leer mm-hmm. te loolu yëpp dafay permettre état bi li nga xam ne moom la ñu xaar ci moom mu mun ko def ci anam yi mu gën a rafete xam nga dafa am lu am solo loo nga xam ne dafa bokk ci administration maanaam soo su la nit saisiré bu la nit bindee nga mën ko répondre loolu sax yëg la parce que li gën am solo ci diggante administration ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal mooy yëg déjà nga saisir administration qui est grosse machine ñu bind la ne la jot nañu nga am benn benn benn benn alerte bu ñu la jox wala benn SMS. Mhm. loolu rek dina wane ne sa dossier enregistré nañ ko loolu daawul am bu jëkkoon na xaar ñu bind la lettre d'accusé de réception euh, mu jaar procédure bu gudd. léegi mën nga déposer dara immédiatement état bi am na ay plateforme même boo génnee Télédac état bi am na ay plateforme yoo xam ne boo inscrire ci plateforme yi wax sa soxla à la minute qui suit. ce dossier est enregistré Si que maîtriser fonction publique su demande d'emploi am ci année vous de l'Amitié stade euh, Diop juste pour déposer ay dossier physique Maintenant, fi nga vous même bu Sénégal am possibilité jël téléphone dugg ci site fonction publique enregistré ou immédiatement après nous donner la notification wax na recevoir ce dossier lii moi ce numéro d'inscription. la même chose école nationale d'administration a parce que bu vous pour au Canada vous bëgg a def concours ENA da ngay billet ñëw Dakar pour déposer dossier physique. Si vous êtes au fin fond de ou Ontario vous êtes en France ou même en même Australie vous ngay jël téléphone vous nga inscrire vous nga valider La plateforme générale, a numéro vous avez notifié bii daf notifier euh, validé nañ ko té loolu lu may wax ni dama jël ñaari ñaari aspect rek mais ministère yu bëri am nañ ko légui nak lepp motul mais ñu ngi ci de façon à plein temps pour davantage faire que ça marche mieux pour que vraiment sénégalais li ñu xaar ci administration bi perception bi nga xamné elle est souvent négative à tort ou à raison que cette perception ñu mën ko corriger ba nga xamné instruction yi président applique joxé ci walu modernisation pour ñu mën ko motalé